waaw noonu la demee rek. affaire yéen moom yéen moom xam naa Alioune faw mu laalanteeg yéen. waaw ba tey yow sa sa tête de defe naa yoral na la bor. ah yoral na la bor non Alioune champion la. Eh, waaw moom champion maa koy <laughs> ah, ah, yi nag. ah, ah xam ne waaw. tey ma wax waaw ah dafa mel ni ci ah, bu fekkee bàyyiwul si diggante bi daal moom. <laughs> Mour ah. <laughs> waaw Mour est-ce que dina bàyyi. la daane woon yow. Modou kii la eh, Iba Mar la woon. Iba Mar waaw Iba Mar petit combat. waaw ci kii waaw ci combat yi la Aziz Ndiaye moo ko tëggoon. maa ngi koy nuyu te jamono jooju mu ngi koy tëgg ah. boobu mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi toj parcelle may toj géej waaye looloo taxoon combat bi taxaw ah yéen ñaar da ngeen doon toj voilà yaag muur maa ngi yëngal par maa ngi yëngal géej waaye mu ngi yëngal parcelle mm. ñu gis xam nga coow li waa coow li après mu tëgg combat boobu yóbbu leen arène yóbbu ñu arène waaw keroog loolu jàpp na ci la la muur daane bis boobu non xarañ rek mën a bëri rek la ma daanee de hmm? yàlla ak gaaw ndax tànte naa ko kele boo xamante ni ku ma ko mës a def daan mais jour boobu noonu mooy li ñuy wax rek bisu ñàkk bu yaay xoo yaay def lay li tax ngay ñàkk dama doon kali dama doon kali deuxième deuxième pied bi pour taf ko def ko comme ni ma defoon doof hmm. léegi moom mu am réflexe boobu noonu bi may yóotu loxo bi sama loxo bi koy bi may sëgg dafa yéex waaw mu jàpp sama triceps bi tourné ak man hmm. daan ma jël bu rëy làmb la làmb la waaw àddina di doxaat tey ba yéen ñaar yëpp ngeen ñëw taxaw ci tableau bi waaw mooy li wax rek su bàyyiwul bëri na woon ci kàttanu yàlla. dina ko fay non loolu moom ala kulli lu mën da ñàkk la. ko Moodu yaa ngi dégg. waaw Moodu yaa ngi dégg Alioune Seye la ngeen defante woon Iba Mar Diop ne boo bàyyiwul bëre di ko fay bor. ah dëgg neexul de.